ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalibe yëpp ci bisu bi tedd bi di bisu Serigne Touba nga xam ne mooy bis bi Serigne Touba tànn ngir deyaale ci ak borom ñibbisi si ci Touba te mu bari lool ci ay mbinam fu daa ñaane ne suñ suñu borom yaa nga defal bis bi gën ci sama bis mooy bisu may dajeeg yow yow ma alxaaka di mbindum Serigne bi yàlla def bi ñibbisee Touba Cheikh Mouhamadou Moustapha daa ko woote fii. di ci ànd ak njabootu Serigne Touba ak taalibe murid yëpp loola moo woy ba nag ni ñëpp di ko dundal di ci fàttaliku Serigne Touba muy bis bu tedd bu màgg boo xam ne bis boo xam lu bari war dañ ko fàttaliku. yàlla def na ñëw fii tey ci kër Serigne Mbacke yàlla def maa ngi koy wax suñu saay léegi fii daa ko mujj gise ci màggal gi ci fekk ko fi siyaare ko di ko fàttaliku bu baax ndax moom jëmbali ju baax.